Ousmane Ousmane Diagne e dapat mendapat gol Ousmane Diagne Badep berhasil le retour kemarin di Sofe eh Wali Bato Abato Simal Yere Simal Yala kide kake eh Wali Yal kapala kasi jande Kone Wali Kone Wali Kone Wali ni Hey. Wow wow. Hey wali wali. Borom si Asma borom si malam ini begam. Abdurrahman borom si malam ini eh Hey langjata borom si malam Wow wow. droit si malam. Kodi. Kang Asengora kaso de. Aha. Lai sengori besan desan. ay débat de bi bees Lamine xas Bagas xas Koné waaw waaw kenn tuuti ñama fogu aha en jom fo pelelum nda jom fo keta safa jom fo keta yonta hey yere cosaan na simalo yena simalo lay jom yena simalo lay cosaan yena simalo lay aada tout droit simalo waaw waaw aduma ah, caba ñam makala aduma ta caba e eh, caba cam nula la ila dune kaka simo ñoñoro simo ñoñor koni fitna fa koni fitna fa ñol seya ñol seya besaxa ndoko norida waaw besaxa ndoko norida besaxa ndoko norida besaxa ndoko norida ko ñooñor waaw bee nga ñooñor waxee ne laasana yéen a mbekam Lamine Jambe Lamine Mbakke ee ab sin caane waaw waaw ee maam usine a mbekam Aliou Sita Mbeke a xum ee jënjëm गले गले पर देखे को उसका मोटा भाई